vie ñu jàll ci l'observateur ak li mu xëyee tey jilee ci alxamis bi gis ngeen ko ci xët wu njëkk wi euh, l'observateur euh, ci li ñu doon waxtaanee sànq muy législative yi la waxtaanee Macky engage la bataille des législatives ci page 3 bi la ñu ne am na benn ndaje bu ñu convoqué ca palais euh, tey jilee ak émissaire politique yi ci rapport yi nga xam ne secrétariat exécutif bi jot na ko te mu nar a nekk de base de travail ci njiitu réew mi Euh, L'Obs ba tey xëy euh, ci mbirum Astou Sokhna pareeguñ ci ba léegi ci page 5 ñu jox kàddu ab euh, anthropologue di Cheikh Niang moom mu wax ci mbiru sage-femme yi mu ne daanaka on risque en utilisant le bâton de chercher seulement des boucs maanaam ñoo xamante ni daal dañ leen koo jallax rek waaye du ñoom ñoo def lu ni mel. L'Obs ba tey ci wàllum euh, politique ak euh, ni ñuy waajalee euh, élection yam na benn coalition bu bees gis ngeen ko Cheikh du dem ak Thierno Alassane Sall Cheikh Oumar Sy na Bocoum ak docteur Abdourahmane Diouf ñoom ñoo def benn coalition ngir fas yéene dem ci élection yi ñu dëgmal mën ngeen koo xoolit ci biir journal bi. mu ñëw ba tey ci wàllum xaalis ak euh, sukuk bi Sénégal émettre 330 milliards de francs CFA ngir patrimoine bâti moom tamit mi ngi ci kay Ramadan il était un lieu euh, Thiarpeul euh, ñu ne lieu de naissance de Thierno Bassirou Mountaga Daxatal ci kay Ramadan bi l'observateur di leen jagleel ci koor gi amaana sax bi bokk na ci numéro yu mujj laata ñuy tëj ñu jàll ci beneen vieux muy record record li mu xëyee tey jile moom ci wàllum football ñu ne buteur contre Villarreal Sadio Mané démb Euh, ñu ne Sadio égale la légende ba mi ngi ci euh, journal bi ci page 5 ba léegi rek ñu ñëw euh, ci mondial 2022 bi match amical préparation bi ñu ne moo les Modou Modou rêve d'un Italie Sénégal à San Siro euh, ci wàllum ballon door bi nag Samir Nasri moom am na ci xalaat nee na yëfi daal mi ngi dox ci diggante maane Benzema ak Belge bi De Bruyne Ligue Europa conférence demi-finale aller l'OM dans la fournaise du Feyenoord Stadion c'est ça noonu la ni ma ko liiree noonu la kon baax na <laughs> voilà c'est à lire ci biir record ah Marcel ah je me suis bonifié de léegi ci football bi ah Ah, n'est-ce pas Oumy ah, Samb ah Leipzig waaw voilà ah, Leipzig ah Leipzig voilà j'ai fait de l'allemand à l'école ah donc c'est Leipzig ça moom xam naa ko à l'assaut des Rangers choc West Ham Francfort ah non allemand bi la mais fàtte naa lépp daanaka j'ai fait l'allemand quand même mais lépp fàtte naa ko voilà merci c'est à lire ci biir record mën ngeen koo jënd moom ak l'observateur di ñaari journaux yi groupe Futurs Médias di édité léegi dañuy jàll ci météo express ak Oumy Samb